ci télévision yi ngir nag ñu mën a tëddee njaaxaanaay ni ki démb la ko xamle ci ginnaaw interview boo xam ne doon na ko def ak benn site internet Assane Samb xëy jël xalimama nee na nag loolee nga xamante ni moom la waa sénéra bëgg a tere taskatu xabaar yi nga xam ne ñoo ci télé yi ak rajo yi war nañu koo yaatal ba ci presse écrite bi ngir nag ñu mën a wàccoo ak éthique ak déontologie yéen a kaay gi di enquête observateur soleil témoin sud quotidien xëy ci loi ci cinq ne nag am na nag nenn noo xam ne moom lañ ko séddalee am na programme d'urgence boo xam ne liggéey yu ndaw ñi moo ko tax a jóg boobee toll na ci cent cinquante milliards bu dee nag lu jéem ci bourse de sécurité familiale yi maanaam xayma nañ ci lu toll ci trente cinq milliards waaye nag bu dee lu jëm ci wàllum couverture maladie universelle xayma nañ ci lu toll ci ñaar fukk ci ay milliards yéen kaay gi di Vox Populi nee na bu dee bourse étudiants yi xayma nañ ci cinquante milliards yéen kaay gi nee na bu dee xam ne tamit war nañu ko dugal ci université yi xayma nañ ko cent neuf milliards yéen kaay gi nee en tout cas yokku na lu bare bare waaye nag lépp daan nañu koy càmbara ni ki démb la ñu ko ne journal bii di Le Quotidien xëy ci Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xam ne moo ko fësal yéen kaay gi di L'As ak Le Témoin xëy ci grippe bi nga xam ne jamono ci sonol na xale yi lool hôpital Albert Royer journal bi nee na bis bu seet toll si ñaar fukki xale yoo xam ne danañu amee grippe maanaam yaram wu tàng am na sax ay cas grave ñi nga xam ne ñooy spécialistes yi nee nañu képp koo xam ne amee nga dooma bu yaram wi tàngee jël ko yóbbu ko nekk ci bërëbu fajukaay bi nga xam ne moo la gën a jege yéen kaay gi di Libération xëy ci docteur Diop mi nga xam ne moom moo ubbi woon ab clinique ca diwaanu Wakaam foofee nag la nga xam ne moom la fa doon def maanaam jigéen ñi ñoo doon dem mu leen di yokkal seen ansi maanaam seen taat yi wala seen ween yi yéen kaay gi ne na docteur Abdou Wahab Diop moom yi université Cheikh Anta Diop bu Dakar la nekkoon ci fac médecine ba mu cartouché maanaam la dem na ko ubbi ab clinique am ni ki démb daan nañu koy teg loxo waaye nag li nga xam ne moo doy war ci mbir mi am na jigéen boo xam ne daf ko doon yokkal nag li nga xam ne daal mooy ay nag encham waaye jigéen kookee paralysé si boppam nag la mujjee def yéen kaay gi du source mandat xëy ci lu garaaw loo xam ne moo xew ca diwaanu Touba am na kenn koo xam ne dafa màggali woon waaye dafa jënd benn produit aphrodisiaque bi ma ko naanee la yi guyu ñàkk bakkanam ki nga xam ne moo ko ko jaay police daan na koy teg loxo yéen a kaay gi ko di jaay ñu xëy fekk fa njabootu Cheikh Niass mi nga xam ne moo faatu fan yi nga xam ne moom la ñu génn ak njabootam ñoom nag ñoo ngi sàkku bu baax a baax yoon daal di def liggéeyam ci mbir mi ni ki démb doon nañu janoo ak taskatu xabaar yi waaye nag ñoom ne nañu bi nga xam ne jamono ji ba léegi mënuñu sa jota loolee moo leen jaaxala am na nag kenn koo xam ne ab taximan la moom ak Cheikh Niass ñoo bokkoon benn cellule boo xam ne ca commissariat bu wàqi naan taximan boobee nag wax na nee na Cheikh bi ñu koy dugal nag ci cellule bi daal maanaam nag ñaqoon na ñaq ba tooy xëpp ba pare nag di noyyi noyyi gu méttee métti doon na laaj tamit li nga xam ne mooy ay garabam waaye nag amul lenn loo xam ne jox nañ ko si yéen kaay gi xëy diñu xibaar naa ñu nag yaayu Cheikh Niass moom nag dafa jooy ba maara day taali waaye nag nee na mbir mi lépp jël na ko teg ko ci loxol yàlla sunu boroma ndax nee na Cheikh moo nekkoon seen yaakaar seenum avocat na dina si jokkoo heures yéenekaay gi di 24 heures xëy dañu xibaar naan ñu di Guy Marius Sagna tey ji koy dégloo Seydi Gassama nee na Guy li ñu koy toppee moom gisu ko fenn liggéey bind daal Seydi Gassama nee na gisu si benn yoon division de fausse nouvelle yéenekaay gi de la sa xëy dañu xibaar naan ñi nga xam ne ñooy bay lu jëm ci wàllu mbayum noor te nekk ci gox bi di Fass Boye ñoom nag li ñuy ñàkk ci ay milliards bëri na loola ndax baykat yooyee di bay mbayum noor rawatina carotte bi maanaam ñoo ngi ñàkk lu toll ci huit milliards ndax nag la nga xam ne moom la ñuy béyee mujj gi sax alimentaire jafe-jafe yu métte métte la ñuy tund yéen a kaay gi di réew mi ko di cee xëy dañu xibaar naan ñu mi nga xam ne moo taaloon jëkkëram Xaadim Njaay mu ñàkk bakkanam Ayda Mbàkke moomee ni ki démb la ñu ko doon atte ci tribunalum Dakar waaye nag tribunal ba maanaam dafa mujjee tàng jër ba nga xam ne nii ba dañu koo mujj dàq journal bi nee na la na waral nag mooy tribunalum Dakar salle 4 salle ba dafa tàng jër amul clim nag si boppam loole nag moo tax avocat yi ak attekat yi ñàkk ba maara détaali l'observateur yoo xam ne dossier yi ñu jël doon ko uppoo journal bi nee na tribunalum Ndakaaru daal maanaam jax na ma dëggantaana moo fa am liggéey yi nga xam ne nag moom la attekat yi def a avocat yi ñoo ngi koy def ci anam boo xam ne bu métte métte la yéen a kaay gi di Stades xëy ci Ligue des Nations journal bi nee na Espagne dem na final niki démb la gagné Italie ci demi-finale bi benn demi-finale bi tey ji la war a am diggante Belgique France yéen a kaay gi xëy nag moom Stades nee na gànn gi jamono ji gis nañ ne ma ngi dox Paris Saint-Germain loola waaye nag gànn mi nga xam ne mooy dox Paris Saint-Germain ana nan la ñuy fexe ba muy dox